برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينام الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي تقدس في غيب الهاهوت المتجلي بأسمائه وصفاته في حضرة اللاهوت وبإسرائه في حضرة الجبروت وبأنواره في حضرة الملكوت ومن أجرام المتشكلات والصور في حضرة الناسوت الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا في السماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فدوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مشاكل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 الله أكبر كبيرا كلما تعاقبت الليالي والأيام وعاقب الفطر الصيام أصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي أرسله رحمة لكافة الأنام ومحللا للحلال ومحرما للحرام وموطدا للإسلام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 يوم شأنه عند مولانا عظيم حيث ختم به الشهر الكريم وافتتح به شهور حج بيته الحريم وجعله يوم عيد وزينة وسرور وعظم فيه للعام الأجور وهو يوم تسبيح قولوا سبحان الله وتحميد قولوا الحمد لله وتهليل وتكبير وبادروا إلى فعل مأموراته وأخرجوا صدقة الفطر وجوبا وهي صاع عن كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد كبير أو صغير يخرج الشخص عن نفسه وعمن تلزمه مؤونته بقرابة أو زوجية أو رق وتخرج من جل عيش ذلك البلد من قمح أو شعير أو سلت أو أرز أو دخن أو ذرة عن طيب نفس وانشراح قلب فذلك هو الأدب ويندب التكبير حين حين الخروج للصلاة إلى أن يأتي الإمام أو يقوم للصلاة ولفظه الله أكبر الله أكبر ومن جاء من طريق فليرجع من طريق أخرى فذلك أوفر للأجر وقدر الساعي أربعة أمداد بوجهه عليه الصلاة والسلام ومن لم يقف على حقيقة مجد النبي صلى الله عليه على حقيقة قدر مجد النبي صلى الله عليه وسلم فليأخذ أربع حفنات بحفنة الرجل الوسط ليس بالمبسوطة ولا بالمقبوضة فذلك هو الساع ووقت إخراجها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ويعطاها الفقير يومه ولا تسقط بمضي زمنها في حق المؤسر وتسقط في حق المعسر ويسن إظهار زينة بالطيب والثياب ولو لمن لم يخرج ولا يترك زهدا وتقشفا مع القدرة عليه والمشي إلى المصلى ندبه متفق عليه والركوب غير مكروه لأنه زينة وهذا يومها وكان عليه الصلاة والسلام لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن مترا وينبغي ترك المصلى مكشوفا لا بناء فيه وإن كان بنيان فليصلى خارجه في البراح فهو الأفضل والأولى بل هو المتعين اليوم وقال عليه الصلاة والسلام شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر وعنه صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع في العيدين إلى الأرض فابرزوا من المنازل تلحقكم الرحمة ولا بأس بخروج النساء يشهدن الخير وكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى المصلى العواتق والأبكار والحيض وذوات الخدور لما هنالك من الخيرات وهن معتزلات ويندب إخراج الصدقة في مثل هذا اليوم وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول يا نساء المؤمنات لا تحقرن أحداكن لجارتها ولو كراع شاة كراع كراع كراع شاة محرقة وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة وقال عليه الصلاة والسلام كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه بشر المؤمنين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 سادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا مشاكل ولا معالج هنا نعم قبل سين بس التايبين بس بو ماكلا في الله تبارك وتعالى يا الله يا الله هبنا سين بير هبنا سين بير نبس نعم التايبين بس بو ماكلا mbiram lu màgg la ci seen borom mu màgg mi mu yàlla tabaaraka wa taala ndax yàlla def koo def muy bés bi nga xam ne moom mottali weeru koor muy bés bi nga xam ne tim moo ubbi weeru aj ndax tey jii la aj ubbi ndax abdullah ibnu omar solo na ne ashurul xaji shawaalu wa dul qaadata wa ashuru dul hijja kon shawaal tàmbali na tey te loolu mooy weeru aj kon ba koor jeexee rek la xaj ubbeeku bàyyi ne li tax bés bi màgg nag mooy bés bi ñaari ngëneel yooyu la boole dafa tëj koor ba pare ubbi aj yàlla def na ko muy bés boo xam ne bésab iid la bésab taaru la bésab kontaan la ndax feeti jullit ñi mooy waxtu woo xamee ne rek sottal nañ jaamu ci jaamu yi buñ jullee semaine bi bay semaine julli semaine bi jeex muy am feet muy àjjuma moo tax ñu ci xutba buñ ooree koor ba weeru koor jeex muy feet moo tax ñu ci xutba buñ ajee ba aj jeex tim mooy iidul adha muy tabaski loolu mooy feet bi bés la boo xam ne nag bési taaru la bési kontaan la kenn du ko bàyyi ngir toroxlu bés la boo xam ne yàlla daf ci màggal yooli ñi nga xam ne ñooy jëf nee nañ ku ci saraxe bés bi ku ci saraxe yàlla dana la ko defal yooli juróom-ñaar fukk noonu la ñuy fulandee jëf yi ci bés bi bésab sàbbal la moo tax wax leen subhaanallah bésab sant yàlla la ñu wax alhamdulillah bésab laa ilaha illallah la bésab allahu akbar la na ngeen gaawantu jëf ndigal yàlla yi waxtu ngeen ko déggee ndax bépp ndigal boo ko jëfee boo ko déggee boo ko jëfee ca saasi rek yàlla boole la ci ñooñ ca ñooñam mu na ngeen génnee zakatul fitre mooy mu dem koor ko nag dafa war nu mu toll saa nekk war jullit bu nekk góor wala jigéen gor wala moomeel ndaw wala mag nit ki daf koy génneel boppam génneel ko képp koo xam ne nii dundam moom la war nit ki ay njabootam yi nga xam ne mënuñ ko wala ay waajuram yi nga xam ne lottu nañ ci wala koo xam ne ak njabaram moo leen boole nit ki jabaram wala ak moomeel di lay jaam bu daw la sax moo ko war génneel mu koy génnee nag mooy lu gën a bëri ci dëkk ba lu dundee bu fekkee mel ni suñ dëkk yi ni ki ki dugub niki ki ceeb ni ki mboq ni ki bele nit ki daf koy génnee ci teeg bakkan ak nangu xol doo ko génnee fekk yaa ngi sit def gi loolu moo ga a nekk ëdëb moo gën a nekk tegginoog yàlla tabaraka wa taala sopp nañ ci bés bi nag di wax allahu akbar ba ilimaan bi di génnee wala ba muy ba muy taxawalee julli baat bi ñuy wax na mooy allahu akbar allahu akbar ku dikkee ci yoon nga delloo ci yoon weneen boo xam ne ni bu dul bi nga ñëwee woon mu ne loolu moo gën a am eh, yoon wax na feneen ne jë ñëwee ci yoon dellu ci beneen yoon am na xikma yu bëri yu ci nekk benn bi mooy feeñal doole yi lislaam ci bés bi wala nga jaar ci yoon bi dëppee ci yoon bee ku nekk seedeel la wala nga jaar ci yoon bi dëppee ci yoon bee sarax miskin yi nga xam ne ñu ngi ci yoon wi ak miskin yi nga xam ne ñu ngi ci yoon wale kemab saa bi nga xam ne moom mooy muddam koor ñeenti mudd la ci mudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muddam yonent bi poti nattam boobu mu nekk ko xamut mooy nguufi ni ñaari loxo waaye ñoo xam ne guddut ba ëpp gàttut ba ëpp tàllaluñ ko ba ñeenti yoon loolu moom mooy muddam yonent bi sallallahu alayhi wa sallama loolu mooy saa bi nga xam ne ñeenti mudd nag moom mooy saa ci kilo ñaari kilo la ak libar ci koo xam ne ni amuloo nattukaay boobu ñaari kilo ak libar ci nga xam ne daganal nañ ci fi mu ne génnee fitri ci alal boobaa mën nga seet loo doo bugg genne bui buy ceeb wala dugub ñaari kilo liibar lan lay tollu waxtu génnee ko nak moy bu fajar xaré ci bisab tay bi ba bi jant bi di yëkëti ko lool moom lañu gëna tan kuñ koy jox moy faqir lañ koy jox ko haajo ci bes bi nak lañ koy génnee bu bes bi jeexee du tax mu wacc bi nga xamné ni man nako ta ko wu ko won waaye bu bés bi paasee képp koo xam ne lott ak tële moo ko tereew na génnee moom wàcc na ko de dañ ciy feeñal taar bu ci bés bi ci gëttu ci sol ay mbubu yu euh, bees wala yu rafet sax donte borom julli ji wut du am ngante julli ji sax ndax taarlu bi bés benn moom julli gi moomul ko moo tax ku dem ci julleekaay bi sax baax na nga taarlu wane yaa ngi ci bésab feet bàyyi ne taamu kenn ko bàyyi ci bis bi ngir dëdd dëddu àddina wala ngir wañ sulu fekk man nga ko dox jëm ci julleekaay bi dañ ko sopp loolu lu dëppoo la waaye wartim ni ki dugg oto mu ne simuñ ko ndax loolu xeet ci taaru la te bés bi bésab taaru la mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanu ci bési Idil Fitr bési Korité lu may dana lekk ay tàndarma te daf ko daan lekk mu tóol loolu pour wane ne tey jii xoorut daf koy lekk mu tóol ndax moom moo ne inna allaha witrun yàlla dafa tóol bëgg la tóol mu ne juleekaay bi it dañ ko war a bàyyi mu ubbeeku du luñ war a tabax bu fekkee ne dafa nekk ci tabax di génn ci biti tabax bi jullee fa moo gën a baax te moo gën a xeey te mooy lu ràññeeku sax ci bés bii mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne weeru koor ñi ko aj ci diggante asamaan ak suuf duñ ko yëkkati lu may ci joxe mu dem koor rot na jigéen ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne yàlla dafay yurdu jaam yi ci bisi ñaari iid yi niki korite ak tabaski génn leen ci kër ndax yërmaandeg yàlla jot leen xam nañ ne yàlla amul place amul barab waaye yërmaande gi nga xam ne daf koy jagleel yurdoom googu moo ko jagleel ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci julleekaay yi loolu ñooñ la ko jagleel ci bés boobu moo tax sopp nañ génn ci kër yi ñëw ci julleekaay daan na moo tax mu ne amul xaay ñi génne jigéen ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na leen génne ñi jëm ci julleekaay bi ay jànq jeeg xeeg yi jigéen ñi sëy yi jigéen ñi nga takkoo néeg yi ba ci jigéen ñi nga xam ne sax dañoo amee mbërëg daan na wax ne nañ génn jëm ci julleekaay bi ngir seetu li nga xam ne nii moom la yàlla di maye ci ay yërmaaneem way mbërëg yi nag dañuy beru julleekaay yi dañuy beru jullikat yi sopp nañ génnee sarax ci bés bu mel nii maanaam sarax gi nga xam ne yaa ko coobare woo bokkut ak bokkut ak zakaatul fëtre ni ki mu dem koor bi nga xam ne wareef la ci bés bii ci képp ku ko waaye sopp nañ sarax rek demeet ci bés bii ndax yooni sarax dañ koy yokk ci bés bii ba ci juróom-ñaar fukk mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne yéen jigéen ñi bu kenn ci yéen xeebal dëkkandooram doonte eelab gàtt buñ lakk la sax mu jox ko ko bu ko xeeb yonent bi sallallahu wax na tim ne na ngeen ceet safara doonte ci genn wàll yi tàndarma la na ngeen ceet safara doonte ci baat bu teey la kon sarax si ngay joxe mën naa dox sa diggante safara baat bu baax bu teey boo wax mën naa dox sa digganteeg safara mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nit ñëpp ñu ci seen ker ak sarax yi ba ba yàlla di fasalee diggante jaam yi àtte ñëpp te bés boobu xam nañ ne bés la boo xam ne dafay tàng tàng tàng jant bi yàlla daf koy jegeel ba yuur yi di wax waaye ku doon saraxe sa sarax mën naa dox sa diggante ak tàngoor yi jant boobu ci bés boobu nga xam ne kenn mënoon du fa kenn dara ma dem ñëwaat mënu ci dara lu may gannaaw boo xamee ne yonent bi yàlla ubbi na bunta ramm yonent bi ramm yàlla ubbil yeneen yonent yi ubbil saalixiin yi ubbil baax ñi waaye nekk loolu kenn manta may kenn dara mu ne na ngeen dëgg na ngeen denkante muñ yalla ko wax yalla neena doomi adama yepp pert nañ lu may ñi nga xamne dañu gëm yalla di jëfé farata na fi lay denkante deug denkante muñ kon buntu ci mucc ci pert gogu mu ngi noonu na ngeen ragal yalla ragal nak, moy top topp ndigal yalla yi ci lu feñ ak ci lu nëbbu ne na ngeen xamul ta ngeen xamne ragal leen yalla ta xamne da ngeen dajje mom te nga bégal way gëm ñi ndax way gëm ñi bés boobu bés bi nga xam ne lu ñu ragal la ak ay nattoom way gëm yàlla ñi bés boobu mooy seen bési feet moo tax ñu leen di bégal tudd leen yàlla tudd lu bëri yàlla wax na ne tudd na وتشوف اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله رب العالمين برهام باء وراء الف ثم هاء ميم مجل فيض تيجان جخن نام